Yeah. toujours dans votre actu du jour de ce premier août 2024 suñu fa jógee dañuy dem fële ca aéroport Roissy Charles de Gaulle bu nekk foofa ca Paris benn sénégalaise bu jigéen daal lañ ca intercepté ginnaaw nag bi ñu fekkee ci moom lu toll ci juróom-ñetti kilos yoo xamante ni cocaïne la maanaam muy drogue moo fu lañ ko jàppee ca aéroport euh, Roissy Charles de Gaulle ndaw si nag mi ngi jógee woon fii ci Ndakaaru ginnaaw loolu daal lañ ko intercepté foofa ca aéroport euh, Paris Charles de Gaulle alors que mi ngi transporté woon lu toll ci juróom-ñetti kilogramme de cocaïne ginnaw loolu dal ben nit dal mo ñew ci mom récupérer ko ba nopi ñu dal dikoy placer placé en garde à vue ki ko renseigné nag di journal ba mu nekk foofu France di Figaro ginnaw nak biñ ko viser mi ngi xamal dal spectre bi dafa nekkon dal ben mule ginnaw investigation yo xamanteni ni ñoo permettre saisie bi nga xamanteni valeur bi débuté na dal jëm ci ben information bu ñu envoyé li di autorité yi de façon anonyme ginnaw nak lepp lo xamanteni ni indi ni ko mu doon ben individu bo xamanteni da foron waroon jot lii nga xamanteni moy ci matinée dimanche ben livraison bo xamanteni ni avocat faut la aéroport ba enquêteurs yi nak ak groupe de recherche yi nga xamanteni investigation yu tuddé len GRI ñom ñoo daldi mettre sur place li nga xamanteni Moy surveillance bi jëmele ko ci nit koku nga xamanteni signalé won nañ ko dimanche matin ginnaw biñ ko suivre discrètement en filature ba ex ci li nga xamanteni moy terminal 2 bu aéroport bi nga xamanteni dal fofu la ben poste nekkon di xaar li nga xamanteni moy bi quelques minutes plus tard intéressé bi dal mo retrouvé wu ki nga xamanteni moy ndaw si jogé won fi ci Ndakaaru di sénégalaise daal di avion bi ginnaw lolou nak provenance du Dakar bi la jóge won suspect bi dal mi ngi transporté won ñetti valise yo xamanteni ben bi dal lepp luñ ci bàyyi woon apparaître muy ay colis yo xamanteni dafa caractérisé wu jëm ci ben conditionnement bo xamanteni ni du dara dul cocaïne ginnaw dal biñ ko liré ci site français bobu ndaw soosu nga xamanteni mo waron livrer drogue bi waa jooju ñoom daal ci saa si lañ leen dal di interpellé ba noppi dal leen placer en garde à vue biñ leen fouyé seen valise nak ak seen auto ci lañu fekk dal waa ak autorité yi nga xamanteni ñoo découvrir lu tollu ci 7,950 kg de cocaïne ci biir li nga xamanteni moy 5 paquets yo xamanteni yu différent la mu doon ben quantité de poudre bo xamanteni dal mënon nañ ko jaay mu tollu ci 500 000 ba 700 000 euros suñ ko jaayé gramme de cocaïne bi tay ñing koy écouler autour de 65 euros fofu ci France suñu sukkundiko ci information bi nga xamanteni Figaro moko joxé jëmale ko daal ci ay nit yoo xamante ne dañuy voyager ak li nga xamante ni maanaam ay jigéen parfois dañ leen di interpeller ñu quitter li nga xamante ne aéroport bi jëmale ko daal ci booru li nga xamante ben auto oto ginnaaw loolu actuellement ñi ngi rechercher li nga xamante ne service départemental bu police judiciaire boobu nga xamante ni moo nekk ca Saint-Denis bi nga xamante ni moom lañu ñu chargé mu jëmale ko daal ci investigation bi muy ndaw si nga xamante ni aéroport u Ndakaaru la décollé ak lu toll ci juróom-ñetti kilogramme cocaïne bu mu egsee foofu nag ci aéroport Roissy Charles de Gaulle lañ ko intercepté ginnaaw nag biñ leen dénoncé ki nga xamante ni moo ko waroon jëli police bi daal daal di mettre en filature waa ji ba ndaw si génnee ak ñetti valisam si fekk fa daal lu toll ci sept kilos neuf cent cinquante kilogrammes de cocaïne